asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki alquran di ab jàngale katub alquran wala jàng katub alquran waaye bokki jullit yi nga xam ne ñoo senq seq diine lislaam ji noo ngi am toog fii ci kër sëriñ Mouhamadul Xabbaan ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak waa rabitatul quraaniya ci njiitul Cheikh Mouhamadul Basir moom seriñ Abibu mu feggoo ak sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Xaali Jaxate ak ñiñ ko seqal dend ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne sëriñ bu Buso moo ko jiite ñu jot ndigal nag ci sëriñ Tubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndigal loo xam ne mi ngi jëm ci dogalub yàlla bi nga xam ne wàcc na ci kaw suuf te wàcc ci réewum Sénégal wàcc ci sunuy bokk mu di daje googu nga xam ne ñaari oto yi daje nañ ko ci yoonu Tamba wi ba ay bakkan wadd ca ay nit gaañu ca loolu nag sëriñ Mouhamadul Mountakha xam ne lu bàyyi ko fi yàlla la mu wóor ko ne dara mënu ci dara lu weesu tuub delluwaat ci yàlla ak ñaanal ña dem sun borom jéggal leen ña ca des sun borom delloo delloowaat leen ci seen sago loolu moo tax mu jox ko ndigal nag ci njàngum alquran moom santaane ci réew mépp ci ku koy déglu ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi. sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullah bokki jullit yi fu waay mën a nekk. fi ci biir Sénégal ak ci bitti Sénégal. rawatina nag bokki taalibe yi murid mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihun ci dogalub sunu borom bi wàcc ci bokki jullit yooyu muy dogal boo xam ne sunu borom da koo dogal te ab dogalam nag kenn mënu ci dara waaye sañees na muñ ak ñaan yàlla nag sëriñ bi wax ne ñi xam ñoom mi ngi massawu ñi nga xam ne ñoo ca am ay bokk. di ci ñaanal nag ña ca bàyyi ko. sunu borom defal leen ak njëgal. teg loxo nag ci seenu njaboot. te ña ko am. wala seeni wajur ñi ngi sant ñëpp. ngir bu subaa. ngir bu subaa. ku di ab taalibe nag. ku di sëriñ baa ngi lay digal. te nga yor daara. mën a jàngale. wala nga mën a jàngulu bu dee bokki jullit yi bu dee bokki jullit yi ñu ngi koy sàkku ci ñoom ci noonu ko sëriñ bi waxee ñun ñëpp ñu ànd fu daar a nekk ñu doxal fa loola ñaan yàlla ñu la ci des jàmm yàlla def ko ca ña ca rëcc sunu borom defal leen ak wér ak mucc lii nag day ab dogal boo xam ne sëriñ bi wax na ne ku mu wàcc ci yow dara mi ko dogal. sunu borom mi ko dogal. moo moo koy dogal. moo koy dogal. la ca gën nag kon. la ca gën nag kon. mooy muñ ko. waaye nag lu tiis la. waaye nag lu tiis la. ndax boo dee xool ñi ci bàyyi ko dee xool kat la ca bàyyi ko lépp. dañuy yaakaaru. dañuy ñu yaakaaru. ay ndaw di ay ndaw. waaye nag fan jëm. waaye fan jëm. ñaan suñu borom mu leen fi. nañu ñaan rek suñu borom mu gënal leen fi nu bàyyi ko. lépp lu suñu borom def rek. ndax lépp lu suñu borom def. ak muñ. akuk cant ni ko Serigne Touba di waxee sa sabru ak sukkur rek moo ci war kon ñi ngi sant ñëpp ci ñu am farlu ci ci nag fépp fu jàkka ne bu ñu mënee wàcc kaamil bu ñu mënee wàcc ay kaamil bu dee daara noonu bu dee daara noonu li ci des nag da koy bàyyee ak bokki taalibe yi ndax fii ñu toog nii waa raabita bi waa raabita bi ak munasamaat yëpp kuréel yëpp daal ñu ngi nii waaye dañoo aju ci sëriñ bi ci ndigalu sëñ bi rek kon nag foofu fi mbooloo mën a nekk na xam ne daal lii mooy ndigal li ñu ngi ñaan nag lii gëj fi di dànkaafu nag sa si yi bàyyi xel ci ñuy bàyyi xel ci loo gis dogalub suñ borom la loo gis dogalub suñu borom la waaye nag ak dal dana tax dogal ba woyof ñu ngi ñaan suñu borom musal leen ñu ngi ñaan suñu borom musal leen musal oto yi ndax mënee su ta ñàkk a dugg ci oto ndax mënee su ta ñàkk a dugg ci oto waaye nag buñ ciy dugg waaye nag buñ ciy dugg nu xam ñun ciy duggee nu xam ñun ciy duggee ñay dawal itam ñay dawal xam nañ ci ñuy dawale xam ni ñoom it dawale am na ku baax am na ku baax ku waxoon ne ku waxoon ne dawal bi gën a eh, ñoŋ ci yi. dawal bi nga xam ne moo gën a ñoŋ ci dawal yi. bu nee bu nee ne teg. bu nee tàcc nga ne teg. bu nee yang ne yow. bu nee yang nag nga ne yor. ku koy def rek. suñ borom mën nañoo musal ci lépp. ñoo ngi ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. ci taxawaayam ci taxawaayam. ci lépp lu jóg ci lépp lu jóg. dana ca taxaw nam ca war a taxawee. dana ca taxaw nam ca war a taxawee. ndax lii ba mu ko yëgee ba léegi. daa daa taxaw temm ci ne nañ yëgal ñëpp nattu ñu ñaan sunu borom yamal yamale fi nattu bii ku am ku mel noonu nag ku am ku mel noonu nag da nga koy ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi bàyyil ñu ko fi ak mbooleem nag njabootam yi mu jaboote yëpp di ay rak di ay seex di ay bokki taalibe ñu ngi sant ñëpp sëriñ Basiiru mii moom la joxoon ndigal li wax maa jox kàddu waaye moom ñëpp dañ ko joxaat kàddu gi ndax li ma sëriñ li ko sëriñ bi sant na na wax ku ci waxoon nag mu doy waaye ku ci waxoon ñoom mu doy jërë kon ndigal laa ngi noonu sëriñ bi wax ne kon bu subaa ci altine ci altine ji na ko ñëpp xëye muy bis boo xam ne bisub ñaan la di ñaanal ñu dawlu ji sun borom jéggal leen te yërëm leen di tuubaat it delluwaat ci sun borom ñaan dogal bii gëj fi di delloowaat it nit ñi ci yàlla di wax ne mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ca ñàkk nañ ko muñ muñ wu rafet te delloo lépp ci dogalub yàlla xam ne yàllaa ko dogal te dara mënut am te yàlla dogalu ko. kon noonu rek la demee ñun ñëpp ñu maase tàllalaat suñu loxo sëriñ bi ñaan ñu ñaan sun borom dogal bii gëj ci réew mi lool te mbooleem ku ci bàyyi ko sun borom yóbbu la àjjana ña nekk ci lali hôpital yi sun borom wéral leen te loolu waat leen ci seen sago wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.